ku mel ni sëñ Sidi andiwu lu mel ni waxtaan ci ku tedd kooku du Cheikh Abdoulaye Mbacké itam da ngeen a am cër boo xam ne bii eh, war na noo bokk di waxtaan waaye rawatina nag bu ngeen jógee ci ku mel ni sëñ Sidi eh, di waxtaan ci ku mel ni Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu baax ma nga xam ne defar na fi loo xam ne walla yokk na fi loo xam ne euh, luy defar di wéy rekk la sëñ loolu ak defaram hmm, mu ngi dox ba ba ba léegi te kenn xamul it fu mu yem hmm. ndax sëñ bi eh, murit yëpp ak lislaam bépp amoon nañ toogaay yu baax waaye bi mu ñëwee da ko yokk ndax Cheikh Abdoulaye saa bu ma wax sa pas-pas yokku saa bu ma saa sa pas-pas yokku loolu nag yàlla ak yonent ak Sëñ Tuubaa rek ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko mën a fay waaye Sëñ Abdou Lahad de moom ku doy waar la waaw ndax ni doon yare nit ak ni leen doon defare dafa dafa àndoon ak teggin yu rëy rëy rëy ànd ak fulla rëy rëy ak fi lu rëy sëñ meloon li doon doxal ci defar nit ñi keneen ku ko mosoon di def ñu ragal la waaye moom ni eh, mu doon defaree dafa dafa dafa dafa dëgër ba noppi lewet loolu nag lu jafe la mm-hmm. waaw wax ji xam ku ko mës dégg Euh, te newoo ci euh, li nga war a nekk meloo li nga war a mel ku ko ku waxin woowu euh, ñi ngay ñi ngay ñi ngay defar danañ ànd ak ànd ak tiitaange waaye seen i doxin woowu la doon dox ba noppi da nga koy gën a bëgg ndax dangay yégal yëgaale ci biir wax ji lawet gu mu lewet ak njëriñ njëriñ njëriñ njëriñ lu njëriñ lu wóor loo xam ne dafa lay wóor ne moom la la bëggal moo tax da nga ko da danga ko daan da yoo xam ne yi lu jafe la ci seen lot boole koog di dimbalee ci yoon wi ak fet fu ne njëriñam daana fa dem boole kàllum yu baax yuy defaree man de benn benn benn bi nga xam ne moom léppam laa jàpp sax ndax ku bëgg lu baax euh, léppi siñum laat ngay jàpp lu mu mës a wax rek te nga bëgg lu baax rek da nga koy jàpp loo mës a gis mu def koy daf la daf lay yokk pas-pas rek moo tax yi mu yi ma doon jàpp ci moom bari na mas naa ko jox itam nag benn kaamil boo xam ne euh, wax dëgg yàlla euh, gis naa ci baatin ña fekke woon ma koy joxit gis nañ ci baatin euh, boobu soxna moom yi mii ma nga fa ca jotaay ba ak sëñ ma sëñ dan mare ak Alaaji Cheikh Touré bale dëkk ngir ngi new dëkkoon ngir ngi new euh, ak ñeneen waaye bari wuñu woon booba soog a kër gi booba daf koy soog a sanc sa defar rek te euh, booba seng yi fi ne booba kër gi lépp seng la néeg yi mu def ci bi kees gu ne benn néeg la fa def ak benn mbaar rek lépp seng la ma ñëw jox ko téere bi fekk mu ngi toog ci benn canapé nii te ab tablier ci wetam euh, bi ma ko joxee téere bi jëm bi nag téere ba téere ba téeméeri këyit ak ñaar fukk la maanaam isib bu ne ñaari këyit laa ko def waaw maa ko bind waaw bi ma ko joxee mu xool xool xool ba yàgg mu teg ko ci tablier bi xam nga kees yi daana am ñaari kees yu sësaloo waaye day am bunt ci diggante bi mu dal di jóg kees gi ne woon dugg ci geneen kees andi benn jaafira jaafira jaafira xam ngeen jaafira ba dal di ñëw fab téere bi prof ci jaafira ji mu yem képp waaw képp képp képp manqué wul di nekkul lu kii lu ñuy puus puusal muy ngir mu xacc wala wala mu dugal ko ci manqué daf ko cee def mu mel ni moom lañ ko def mu ne la lii de doy na bii day benn waaye ma ko fi joxoon rek moom fi indiloon ehm, ma teg ko foofu ci ci bu la wax buufee bi ci kaw buufee bi ba ba ma ko fa tegee maa ngi koy door a jëlaat nii xam nga loolu doy na waar. Euh, am na it ay baat yu ma fa yooyu moom dama koy bàyyi <laughs> waaye xam naa ni daal mu mm, ngi doon attaaya booba yor yor la nag mu naan tuuti dal li may jox kaas bi des bi xaaj bi euh, ñëfe ne dal li may xaw mel ni ñu ñu ci itewoo bëgg ma maanaam mosal leen ci sëñ sëñ sëñ dan mare madame maa ma ne bu ci bu ci jox kenn bu jox kenn de rek ba ñëpp toogee nag ba ba ba dal nag mu ne ma <laughs> man di xanaa man mi li xanaa nag ma ji <laughs> nag ah, ah, lu ma ci may kenn rek ma bàyyil bàyyil ma far ko kii rek boobu am na am na am na am na am na am na ci loo am naa loolu woo na ma fii benn bis belal ma dem fa moom itam moo fa demee am na keesu keesam naa man néeg boobu sax ca la ñu ne ca bu mag la bu féete ca gannaaw am na benn kii pant pant pant boo ne benn néeg rek la tabax waaye mu féete nele benn néeg dang la am ñu defe naa dañ ko seng ci kaw xawma fa waxtu xiwlu nag nu dem fa di mi ma fa ak ñeneen ñaar xam nga amoon na gisin woo xam ne ci ku mel ne si laat xam naa ñu bari sax moom lañ amoon. waaye man dama ko doon yëg ci sama dama ko yëg bu metti ba tax na bi bi nga xamee ni wóor na ma ne euh, barab bii nu ne nun ñii doo nga fi ne ak suñu laat loola rëy na ci man rëy goo xam ne biñ demee di xiwlu man xiwlu ma dama mos suut jóg fekk moom ma nga ca néeg bale toog nun noo dem fële ca ca nekk alaaji Modou Mamoun ñu dama yow koy gannaaw eh, añoo koy dama bëgg seet sa baay ba xam loolu la ñu ma jóg léegi nag xam nga moom mu ngi toog ci bunt bi nii tànk yi da ko seen waaye doo seen bu fekkee boo jógee nee nag da ko seen mm-hmm. waaye bu fekkee da nga ci néeg bi ñu newoon fii rek ngay seen ba may demit ci moom it maa ngi dégg muy jàng mooy bu ca kaw jàng yi ñu ngi ni Fallou Ndiaye ñoom di jàng waaye gannaaw woon ñembe bu ma jëm ci moom rek may def nii rek bëgg mu gis ma def tappalay taalibe yooyu rek nga xam ne fexe ba mu xam ne yaa ngi yaa ngi waaw waaw mu mu ma nag dama ñëw Abdou sëñ Abdou la ma wax dama ñëw toog ci kanam la mën na nga def ma ne ko maa ngi fi rek Mbacké di sant di ñaan nga yàgg fi mu ne ma waaw maa la woolu damaa bëgg nga bindal ma ab kaamil hmm. waaye dama bëgg nag mu doon mbind mu dijj waaw bind mu dijj ma ne ko noo ko bëggee rek Mbacké dinaa ko def noonu ñu daal di waxtaan waxtaan waxtaan ba ma taal sama loxo mu ñaanal ma ba may dem bay dugg ci bay bëgg génn bunt bi ba génn ko tuuti mu waawaat ma ñëw mu ne ma na fexe ba mu doy waar de nu mu doy waaw mu ne ma nu mu doy waar rek da nga doyee noonu waar wala ma waaye bi ma ñëwee fekk nag bi may dem nee naa maa ngi dem belel sëñ bee ma woo bi ma ñëwee ma jaar ci néegam na ko man de dem naa ba ñëw man ah, ah, ah, maa ngi la moom bi. mu ne ma mu ko man lay sëñ bi. dafa ma dafa dafa ma doon woo ngir bindloo ma ab kaamil. mu ne ma ah ah loolu sant yàlla. ma daal di ma daal di ma daal ko waaye. ndax booba nag fekk na mos na maa dem fële fu ñuy wax Madina Mbay ca njub wetu njub ngent àndoon ak saam maam Mor sama rak euh, ma gis nag muy barab bu bari ay mbañ fa la mm-hmm. xam naa ne mbañ fa la ah. waaw euh, ma neen ma jàll di ne nag foofa laay dem mm-hmm. ndax bant yi ma soxla daal mm-hmm. foofu rek la la la mën am bi ma ko waxee daal sama ndey ni ñokkete ci lal bi fi fi mu fi mu toogoon. dal di dem ci wuti armoire am. daal di koy tijji. génne ci benn benn benn euh, benn sayum bañ fa la boo xam dañ ko dagg ba mu jekk rafet. <laughs> ma ne ko ah, waaw xam nga suñu saam moomu. soxnaam euh, soxna maye ko wàcce woon. Mm. may galas. Mm. yàlla dogal bi muy am doom. fekk soxna si mu ngi mu yebal fa sama ndey ngir mu mu ngénte ji ko ci Madina mboobu googu man naroon a dem Madina Mbay waaw ah. mu ne ma ne ko lii nag foo ko jële mu ne ma kii de Madina Mbay laa ko jële <laughs> loolu daal téere booba bi ma demee ñett ñaari dal laa def ba xare Euh, ñaari dal laa ca def bu dijj lool ak bu bu yem bu xaw a dijj nga xam dañoo ëppante rek ci biir kër sëñ Fallou laa ko tam laa ko defe Alaaji Mbàkke mi mu ne bëgg néeg ñu defar ko dana ko moom seet lal fa yi fee lal yóbbu daay yi ma defar ko fa defar yëpp ba mu jaar yoon. ma ma ma daan nag léegi ñaari dal yi naa ko yët sëñ bi. Mm-hmm. ba xam bu ko ci bu ko ci gën a kii di boo ñëwee fekk mu mu toog moom itam yoon woowu moom moom dong laa fekk ci ci ci kii bi. daf ko ubbi rek na ma ah suñu suñu suñu mbind mi doy na waar de. te mu daal daanaka looloo tax àggut doy na waar yooyu mu wax daal ma ne gannaaw xas na ko wax rek naa naa noonu mujj ma ko bind ndeysaan waaw waaye doy na waar ji moom. jam waxoon moom wax na waxat na ko ci lan waaw doon defare nit ñi lim leen doon yare te loola lépp bëggal nit ñi lu baax rek moo tax yàlla dogal mu mu mu mu dem sëñ Sidi mii fi ne ñëw rek di moom fulla jeeg ak taalu begeeg mbaax gi lépp mu ngi ci si moom mi moo tax ma ma bëggal ko sama bopp moom ci ci euh, li fa demit nag bu ma fa mujjee rek ak léegi ma ma ma ëppul ñaar fukki ma ci biir koor gi la waaw ci biir koor gi rek ah bisu korite gi la waaw bisu korite naa waaw bisu korite gi dem naa fa moom it ndeysaan mu bëgg ma lool ba ma xam ba ma yëgal ko sama bopp di ko ñaanal mu yàgg fi nag bu baax di ñaanal ku tedd ki sëñ Muntaxa mi nga xam ne mooy sëñ Tuubaa mu yàgg fi moom it ak njabootu sëñ Tuubaa yëpp di leen ñaanal te nga xam ne sama wax ci lu mel ni ñu koy dégg du bari waaye lu jóge ci sëñ Sidi. jaar ci yéen ñëw ci man. Euh, du ma ci ñemee gàtt dama ci boole ñaari yëf. du ma ca du ma ca sañ a waaye duma ci bëgg gantu gàntu itam. waaw du ma bëgg a gàntu. Euh, du ma ca ma ca du ma ca ñemee gàntu. ndax ndigal la. am na ko ma si waxtaanal benn bis. Euh, suma xaritu tubaab bu fi ñëwoon. nu dem kër sëñ Saliou moom di ko di ko di ji euh, fekk moom moom mu am tapis jullikaay bu mu jëndee woon France euh, ñëw na ngir ngir nu yët ko sëñ bi biñ demee fekk nañ fa sëñ Fallou mu sëñ Soyibu euh, sëñ sëñ sëñ sëñ bi ñu waxtaanee ba noppi sëñ Saliou wax sëñ Fallou am na benn néeg bu ne ci gannaaw tabax ni mu ne nañ ñu yóbbu foofa min nag sëñ ba sëñ Saliou sëñ Fallou sax di tooñ naan na ah, ndaw ngaan neex nga ganale sa doom waaw dana war a neex de <laughs> léegi ban demee nag bay xiwul nag di waxtaan nag ci baaxu uh, njabooti sëñ Tuubaa yi rek waaw bañ demee bu ki man li ma la li ma xam ci ñoom buñ ma ne woon naa leen jàng bu mokkal leen ñoom ñëpp ku ci ne ma mokkal na ñoom mën ne su leen a mokkal sax mm. waaye ñu jàng leen ba ba ba ba xam ba xam ci ñoom lu bari ma ne ma ne ma ne leen keroog man buñ ma ko waxoon duma leen jàng ñoom ñëpp kenn rek laa ciy jàng mm. bu mokkee rek danaa mën a tariñ ci des mm-hmm. waaw kon diggante sëñ falu ak ak sëñ Ablaat noonu rek la demee mm. waaw koo ci koo ci mokkal rek mokkal nga ki ci des ba ñoo bokk luñ bëgg bokk luñ bañ liñ bëgg ñoo bokk nuñ koy bëggee liñ bañ ñoo bokk nuñ koy bañee loolu loolu la moom lu mu mës a wax euh, day yokk sa pas-pas lu mu mës a def day yokk sa pas-pas euh, wax naa la ko sax ci tàmbali bi ne la moom ni mu doon defaree ni mu doon yare euh, dawul gaañ kenn maanaam nga dégg ko mu. Ah, blessé la wala wala yooyu dawul moom foo ma sa waxam dëgër dëgër dëgër dëgër da ciy bég bégte la lay jox xam nga xam nga xam nga ñu bare bari bu ñu la dee defar dañ lay jaarale ci yoon yoo xam ni yi metti daanaka bu ñu la ci jaaralee sax lañ lañ lañ lañ lay bëgg a defar lañ la doon jàngal sax daanaka doo ko mokkal mm-hmm. ndax <laughs> day waxin ak doxalin wa ak melo day metti Sëñ Abdou Lahad moo moo lay moo lay defar euh, nam lay defare nga bég ca boole ca ak bo boole ca boole ca defaru ca loolu loolu moo ma a kii euh, Cheikh Abdou Lahad Mbacké dafa doonoon jëmm yoo xam ne yi daal dafa doy waar loo euh, ba tax na ni mu daan yare nga xam ne ak dundam yëpp liggéeyam mooy bëgg yar nit fas yéene yar nit ñi defar leen rek mooy yoonu ci bi ak yoonu lislaam loolu moo doon liggéeyam waaye lu doon yare ak nu mu doon defare nga xam ne loolu ay waxam loon ay ndimbalam noonu la meloon ndax nun dañ daan faral di toog ci buntu kër sëñ Baara am na garab gu fa newoon foofu nga gis jàkkee sëñ Moussa ji nekk fi sax fi la fi fi kër si keesu sëñ moom moomam foofu la woon euh, nga xam ne boobu tukki xewagul boobu mbàkki mbàkki yu ndaw yi daanaka ñëpp Tuubaa rek lañuy ne amuñu daa boobu tukki xew tukki yi xew léegi xewut booba danga ne buñ xëyee rek dañuy dem ci kër mel bokk wala dem daje fenn di waxtaan ci sëñ bii di waxtaan ci yooyu rek moo doon moon suñu ité booba alaaj baara nag bëggoon nu nga ne ku ci xëy rek li ngay li sa xel di nekk mooy dem buntu këram toog xam nga bunt kër sëñ baara boobu nag ak fi fi sëñ bi amoon na buntu boo xam ne bii eh, ca ca ca koñ ba la ne woon jàkkaarloo kër alaaj baara la fa daan toog xëy toog suba ba une heure waxtaan rek waaye léeg-léeg gis benn remarque bu sàrti bu fees rek ceeb walla dugub wala wala wala bant wala seng ñëw arrière ba dugal genn wàll gi ci biir kër gi rek ñu wàcc déchargé euh, yooyu remarque yi daan wàcce nag sëñ bi amoon na ci këram ay ay oto yu ndaw yu ñuy wax quatre cent quatre camionnette ni remorque yi déchargé noonu lañuy ñuy chargé ñoom itam di dem dangay gis remorque oto boo xam ne bii bu ndaw day chargé ba nga xam ne da nga naan ci oto bi léegi léegi léegi léegi mu laal pën yi ndax ndax chargé bu fees rek dal di départ te yu bari ñoo ñëw woon ci kër yi bu benn départ ba dem rek ba balaa bu dellu si rek tasanteeg benn di départ. loolu moom moom euh, noonu lañ noonu la oto yi doon def. te li ci doy waar mooy da gis oto yoo xam ne dañuy chargé dem léegi del si léegi nga xam ne yooyu soriwuñu ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi dem ci ñi gën a jege waaye léeg-léeg daa nga toog itam nag nga gis oto bu chargé nga toog fa ba dem te du del si nga xam ne boobu fu sori la jëm bu ko defee ci ngay xamee ne kon ndimbalam yi mu daan def mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi ñëw dem fu jege waaye mu ngi dem fu sori loolu loolu loolu ñun dañ ko seetlu eh, ñu mu ñu sar si ceeb ba fees dem sar si seng ba xam daan dem ci ñoom mooy ñi nga xam ne la sëñ bi du yóbbu dañ koy soxla mënuñu koo ñàkk te amuñu ko xam nga kooku bu bu oto jékki-jékki kala sa ne ci buntu kër ñu kooku sëñ bee fi yónnee xam nga kooku eh, lu rëy fa jóge na ci moom noonu euh, moom la moom la doon def te loolu oto yi doon yóbbu nga di ko nga di ci teg sa bët lim daan def ci dimbal loo xam ne ci poos moo te xam nga ko mel ni sëñ Abdoulaye nim nim nim nim nim nim ni mu amee woon itte ci defar nga xam ne fu mu toll mu ngi ci kooku googu jot euh, mu boole ko dafa dafa doy lu jafe la dafa boole woon ñaar yëpp loo ci natt rek mu tolloog moroom moom mu doon defaree li muy rëy rëy li mu doon dimbale noonu la toll moo tax mu ngi koy ñaanal daal yàlla yokku ay xib waaw ñi nga xam ne ay néew dool ne nekk ci biir kër gi mbaar yi foofu ma sa dem da fekk mu fees dal ñoo xam ne kenn xamul fu ñu jógee kenn xamul ñooy ñan nekk fa fees dal rek Euh, man danaa ci nett loo xam li may wax ne sama tur li tax mu bari ci lu ma lu ma dund lay doon xam nga li li nga dund nag boo bu fekkee moom nga bëgg a wax hmm. faaw nga faaw tur génn ci am na benn tabaski boo xam ne euh, ba ñuy waaj a julli ji xam naa boobu ju boobu boobu jàkka ji jullikaay bi fees na penc meeg mbedd yi yëpp fees nañ xam nga boobu sëñ bi dem rek lañu moo des moom la ñëpp ni nekk benn waaye jékki-jékki rek ñëw ak ak mu ak fitna andi yor xar moo xam ni mu toll jaar ci buntu kër soxna may bi ñëw dugg nga ne bi muy yeew xar mi mu ngi yàkkamti ndax ci ñi war a gunge sëñ bi la bokk te bëgg a départ sëñ nga xam ne yoonu diggante kër sëñ toll bi ak ak kër sëñ Abdou Borom Dër bi bi mu yeewee xar mi foofu la daw jaar Euh, diggante boobu man benn waay la laa laa ko laaj ku ne woon foofu koo xam ne fekk na jotaay ba mu ne ma sëñ bi de moo jékki-jékki laaj ndax yóbbul nañ la yóbbul nañ Karim am xaram ma xam ne xalif général de Mouride buy bëgg a julli ji oto bi gaare nit ñi koy gunge ñëpp taxaw jàkk jëf fee ba jullikaay ba fees na fépp fees na mu fàttaliku loolu kooku xam nga ni bàyyiwu dara noonu la meloon lépp lu lu lu lu baax du ko fàtte waaw loolu daal ah, moom moom xam naa ko ci buntu kër laaj baara boobu nu toog doon toog itam noonu ma ko waxee rek dafa noo bëggoon lool ndeysaan ñu bëgg ko di fa dem boobu si boobu suñ baara doonagul sax xalifa suñ falo boobu suñ moodoo fi ne suñ moodoo yi bëggoon nañu waaye responsabilité xalifa gi mayu ko woon mu mu mën nu mën di toog ak moom lu lu bari waaye léeg-léeg nu ma ko rek dama fa siyaare ko léeg-léeg mu woo ci kenn fàttaliku la war la ne mas naa ko wax suñ Modou ne ko damaa bëgg a def commerce suñ Modou Bousso mu ne tekk ba yàgg mu ne ma ah doomi suñ Fallou de mën naa bañ a def commerce doomu Sëriñ Fall na jaamu yàlla rek mu ne moom boo jaamoo yàlla rek li ci des sa bàyyi dana ko dana ko dana la ko jox sëñ Modou mos na maa nga am na solo. xam nga sëñ Blaat ku mel ni sëñ sëñ Blaat day jàngale. yooyu ñu ñu ñu di ko ñu di ko ñu di ko def ci ñoom lañ koy jànge ndax liñ koy jànge ci ñoom mooy ñoom dañoo baax ba xam nañ ne lu ñu def rek lu baax la. moo tax boo bëggee ne ci yoon wi te lu lu mu lu mu tuut tuut nga domp ko ci sa bopp def ko ci yoon bi da ngay xool ci ñoom waaw xalif général de murit itam dafa dafa dafa euh, euh, man euh, dama mën sa toog fii ba yàgg xam nga mbàkki mbàkki bu sëriñ bu ndaw rek day day responsabilité lay jëkk am ci wërsëg da nga am ndax responsabilité yi moom booy judd tuuti ba dem nga mu tàmbali te wërsëg bi nag moom du du du du gaaw <laughs> nga xam ne foofu da ngay jaaxle di ba mës naa fee ba yàgg ma ne damay dem rek hmm. waaw damay dem ba fu ma dem ba xam ne kii na rek ma toog fa nga xam ne du boolewuma ci ak wàññiku dem waaw dem rek laa laa laa moo doon sama programme waaye wàññiku boolewuma ko ci ba ma demee bu Burkina Faso guddi ga ma fa jëkk tëdd nga ma fa jëkk fanaan sëñ Abdou feeñu waaw maanaam gént liñ koy tuddee waaye am na gént yooyu ni mu lay dikkee da ngay xam ne lii lu ci ngay jëkk ci laa jëkk xamee ne xalif de murit yoon wi da koy koy def nii mu ne ma foo jëm ma ne ko ah, man damay dem mu ne ma wàññeekul waaw bi ma xëyee sama yaram wi dafa fasu ma fas yéene wàññiku waaye bi ma xëyee ndekki sangu daal di daal mu mel ni daal eh, li li ma doon yëg ni li ma doon yëg sama yaram dafa deñ ma décidé waat ngir jàll te décidé war naa wàññiku ndax li ma yëg ci guddi gi ci gi ci topp eh, sëñ falu ak Cheikh Amadou Bamba ñoo ñoo ñoo ma feeñ ci guddi gi ci topp rek de xam nga sëñ bi moom def na responsabilité moom moo jëkk a ñëw moom Cheikh Abdoul Ahad waaw sëñ sëñ Fallou Cheikh Amadou dafa mel ni dafa lu ne ci miir bi taxaw sëñ Fallou jàll si ba ci lal bi ma nekk téye ci téye ci tànku lal bi ne foo jëm ma nekk ko man damay dem rek xam xam fu ma jëm ma ne ma wàññikul li nga fi fi nga jëm da nga fay fekk li nga bàyyeeku gën waaye waaye njaag moom dafa <laughs> <laughs> dafa dafa daal di àdduna ne bàyyi ko rek mu dem bu bu jógee fii te jëmul Sénégal eh, fa mu jëm du fa yegg loolu la wax moom loolu la ci àddu moom suñ. moom suñ Tuubaa loolu la ci wax rek gisatuma leen keroog Ndakaaru laa fanaan yàlla xam na. ala am na fekkoon naa fa benn doomi El Hadj Allé Samb bu baax ndeysaan ku ñuy wax El Hadj Samb bi ma xëyee ba woo ko ne ko wutal ma billet Sénégal mu ne ma ah, sëñ bi ku baax laaj laaj baax a baax te murite moom moo daggal billet ma dal di ñëw fanaan ci la gaaru xam nga waxtaanu télé ak ki dafa ki waaye lu lu loolu lu gudd la ba sama ñëw del si Touba gudd na ndax bi ma sëñ sëñ bi waxee ak man dafa jàpp sama yaram ba bi ma ñëwee ndakaaru bàyyiwuma waaye munu xam naa ne Tuubaa lañ bëgg lañ ma lañ ma lañ ma fas yéene yóbbu moom waaye boobu gëj naa fii itam gëj goo xam ne munu ma woon ne bëreet rek dal di ñëw ci laa ña mooy nekk googu ma nekkoon ci si kër Assane Mati Ball booba lépp maa ngi maa ngi maa ngi war a ñëw te munu ma munu ma gëdd ñëw ma toog fa ba yàgg ma dellu si ma soog ak si Tuubaa toogaat naa fi ab ab diir lu ma ñaari at ñetti at ñeenti at yoo xam ne mënumaa dem Dakar daanaka waaw. ba ma demee ba ba loola jeex takk nag ci sama yaram ci laa soog a demaat Dakaaru mooy mooy nekk gi ma fa nekkoon noonu yàgg te muy joon ñibbisi rek nga xam ne wàññi ku googee daal. moo ma delloo si waat ba ma ba ma toog Tuuba seenu mbaax li tax mu am solo euh, dañ ko dul baax rek téye ko mu yem ci ñoom dañ koy jàngale euh, boo dee ku ku mën a jàng nag di di jàng la ñuy la ñuy mel ñoom euh, lépp ngay jàngale fi mu ne bu fekkente ne yaa ngi def dara ku mu nekk ku nekk ci yoon wi ku nekk tey def lu baax ci ñoom ñooñu nga koy jële buñ dee buñ dee wax lu baax ci ñoom ñooñu ngi koy jële loolu ñoom loolu mooy seen seen seen liggéey dañuy dañuy defare luñ moo tax luñ def rek euh, boo ko boo ko boo boo boo dee boroomu euh, xool da nga da ngay tibb ci la ñuy def di ko téye fi nekk nii mm, loolu euh, defar gi ak ak ak kii xëy na yàlla dogal na ma siiw ci waaye daanaka euh, mara bu yépp ci loolu lañ nekk xëy na ëppali ci noo koy defe wala wala loolu rek moo ci nekk waaye kenn ku ci nekk lum tut tut tut ci lool la ne dimbalee ci jikko ak ak xiwal ñoom ñëpp ci lañ nekk képp koo xam ne kii mos nga euh, xam nga sëñ Fallou bi bi bi bi bi Lamine Gueye ñëwee ci li ma dégg sax boobu man yooyu yëpp maa nga kër sëñ xaas xam nga man foofu laa féete woon moo fa jógee ca daara ji rek laa jëm waaye li ma doon li ma li ma doon eh, dégg seen nett itam eh, ay nit lañ yoo xam ne ñi daanaka luñ la wax moog loo fekke mooy ñooy ñooyam ndax am na wax yoo xam ne yii Euh, ci ku mel ni man mm, boo ko déggee du waxuma sax nettali ko waaye da nga ko dul gëm sax mm-hmm. waaye am na ñoo xam ne luñ la wax rek dafay mel ni loo fekkee ndax nañuy nañuy mel euh, ak fa fa ñuy fa ci dëggu euh, moom mooy tax waaye dégg naa Lamine Gueye ñu wax ne bi mu fi mu fi jëkk ñëw bi ñuy campagne moo Senghor am nañu sëñ bi jëflanteeg moom ba ba ba ba Lamine xaw a kii waaw xaw ca xaw ca nee nañ ma ñaxtu nañ ca sax tuuti. ñaxtu ba xam naa ko xam naa ay xam naa la sëñ bi def ak waaye loolu daanaka dëggul jaar di ko di ko leeral. waaye Senghor bañ ca tegee ab diir Senghor ñëw. bi ñëwee sëñ bi dalal ko kër El Hadj Tuut Ñang ba la ci Mbakke. fa la yendu sëñ bi mortu ñëw sëñ bi jox ko ab lim mm, jox ne ko jox ko Senghor ne ko mag ko dimbale ci ci ci campagne bi ba ñuy ba Senghor ko joxee ba Senghor di tàggoo si bi mu delloo sëñ bi xaalis bi ne ko Mbàkke sa ñaan rek laa bëgg sëñ bi ne ko ah man de sëñ Tuubaa rek la am te maa ngi ci liggéeyu euh, jumaa ji bu fekkee boo toogee dim nag ma ci dimbale di dana dana dana la ñaanal da jot ci li nga bëgg noonu waxante nañ ko fi sëñ Blaat tànk yooyu nga xam ne nga xam ne sëñ bi sëñ Fallu lu taxoon mu jàpp Senghor mooy jumaa ji rek liggéey bi ko bi nga xam ne te ndax <clears throat> mu toogee la mu ko la mu waxoon la Senghor la mu waxoon loolu rek la def waaw moo taxoon sëñ bi jàpp ko sëñ Blaat loolu ñu ngi dégg ñëpp ci ci ci waa nguur gi koo ci dégg ñu ne waayam loon xamal ne kuy ku ku la la la la tax mu doon waayam mooy jàppale ko sëñ Tuubaa rek jàpp jàppale ko am na waxtu mu fi waxe ne euh, nañ joxe ndigal ci Abdou juuf waaye boobu dara taxul lu dul abdu juuf Euh, jàpp sëñ Tuubaa rek li am yu muy def ci dëkk bi yooyu waaye boobu jàppatoon sëñ Tuubaa it moom daal ku ñoom ñoo kuñ kuñ jàpp rek sëñ kuñ xaritool rek sëñ Tuubaa tax sëñ Abdoulaye Dey moom benn gi moom dafa am baat jum ci waxoon yu leer yoo xam ni dafa dafa dafa ku ko dégg rek xam ne leer na ñu mu doon wax ci eh, ñaar ñu bokk ndey xam nga ñaar la ko waxoon xam nga ah, waa ñett ñu bokk ndey nga bëgg a tam ki bàyyi ki ci des. Eh, loolu mënu mënu mënees ko dégg. waaw ah. ah waaw ko waxee. Ah, te boobu li mu ci jublu mooy bëgg a wane ni ñoom ñoom lislaam bépp ñoo ko bokk. Eh, kon gannaaw ku ci ne yaa ngi doxal la ngay doxal mu rafet. ci lislaam boo ko bëggee euh, tuutal ci ay mbiram wala yooyu kooku yenuwul maanaam loolu la sëñ bi wax na waaw léegi euh, moom nekk na fi daal euh, doon sëñ Tuubaa mu mat sëkk ba jógee fi rek ñëpp di ko ah li ma li ma doon wax daal mooy xam nga euh, yoon wi hmm. lu diis la hmm. ku ñuy ku ñuy koo xam ne kii doonoo sëñ Tuubaa toogoo ci daram bi doon ko ndax sëñ day yoon wi moom hmm. euh, sëñ Tuubaa ñim ci defar dafa bari te ñooñu ñëpp ñu ngi ñu ngi ñu ngi defar ndax ndax xam nga sëñ bi bu lay bu lay bu lay bu lay eh, bu lay defar bu lay bu lay bu lay defarloo tey tibb ci boppam def ci yow bu ko defee loola moom ngay mën a doxale li nga war a doxale ci li bëgg waaye bu boo demee ba doon eh, toog ci der bi nag moom ngay doon moom mooy moom léppam lay fab def ko ci yow bu dee ngay moom waaye yoon wi ne ku doonul sëñ Tuubaa bu bu bu bu sëkk sëkk sëkk nga xam ne dara dara dara dara dara desut doo mën a téye yoonu ñaari fan. dëgg la waaw ko téye ñaari fan. moo tax sëñ Muntaxa mii fi ne fi mu ne man ñi wax ne ba ci sëñ monsieur li Moxtaar bi ci yàlla yokk mm. ak ñu ko jiitu ñëpp. Euh, nangu. Eh, diw mi fi nekkal sëñ Tuubaa la diw sëñ Tuubaa rek laay wax ku ko fi mën a nekkal rek eh, man man sëñ Tuubaa ngay doon ci man waaw du ma wax ne yaa ku fi nekkal moom dama la koy tuddee rek te xam ne moom nga ndax xam naa ne summiku na ci yow léppam waaw te boo gisee ku ci ku fi ku fi nekk xalifa eh, doo juum benn yoon